mbokki jullit yi ñuy seetaan fii ci almisbah tv ñu ngi dellu si waat di leen nuyu ci baatu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu tabaarakallahu di leen ziyaara ca di leen ndokkeel di ñaan borom bi subhaanahu wa taala ah macha allahu yàlla na nangul ñu suñuy jaamu yàlla yàlla na yàlla subhaanahu wa defal ñu barki alquran يالنا برام بي سبحانه وتعالى بولي نيو تي نيغا خامني داني ديغ تيرم بي وايي داني كوي جيفه ني فاسين ديلو سوات اندك يين تي سونو جوتاي دارا بي دي تفسير القران العظيم يا كانا سونو جوتاي بي باسي نيغي وون اك يين تي سوره الملك مي تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير نيغي تيغون سونو بارام سونو جوتاي بي باسي ci آية ببرم borom وتعالى subhanahu wa ta'ala di wax ni ba'd a'udhu ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير تاني فاسيني كوماسي ген تي ايا جوروم تي سار سوره الملك آية بي آية نيك ايا بو خامي ايا بو راغلو لا <coughs> ndax xam ngeen ni alquranul karim mooy doxe noonu bashiran wa nadiran alquran day boole ñaar yoo xam ni benn du ci dem bàyyi moroomam mooy toujours day xupp jaam bi xupp ko delloowaat ko ba su naroon a maam mu nekk ci ay bàkkaar xolam daldi tiit mu dellu delluwaat ci boromam subhaanahu wa loolu moo tax alxuraan dinay faral di nettali safara ak la ca aju di wax safara ak na mu tànge safara ak ni mu mettee waaye mbugalu ëllëg yowmal qiyaam la ca aju bu ko defee jaam bi mën a tiit delluwaat ci boromam subhaanahu wa taala bu ci walbatikoo nag jóge ci nag dal di dem di tudd waa aljanna ak xéewal ya leen yàlla di defal ak naataanga yaag xéewal ya na mu toll su ko defee jaam biir xelam dal ba mu yëg ni daal ëllëg yawmal qiyaam yàlla mën na koo boole ci gaa yooyu muy tëral ca aljanna ñaar yooyu la alquran di doxe moo tax toujours ñi wax nii kii waaraate di wax ci lislaam war nay bàyyi xel manhajul quran manhajul quran ca mooy méthode bi nga xam ni moom la alquran di jàngale léeg-léeg nga gis koo xam ni la ci waaraateem aljanna rek lay wax waaw ëllëg yawmal qiyaam la fa ne ci xéewal rek lay wax waye du nango wax safara ak la ci aju mukk waye léeg-léeg nga gis ko xamni safara rek lay nango di waxtane du nango wax janna mukk ak la ci aju su boba mooy na li nga xamni moy al manhajul qur'ani borom bi tabaraka wa taala kon ci aayaat yi ñi bëgg jang meñ ñi ci wax ëllëg yawmal qiyam safara jahannam ak ñamu ko wajalal yalla nañ ci yalla musal a'uudu billahi min alshaytaan arrajim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 gaa yooyu de lahum ñel na leen adaabu jahannama mbugalu safara jahannama wa bi sa yees na almasiru fa ñu mujj ndax lu waaye am ci àdduna lu mu rëy rëy lu mu baax baax lu mu neex neex bu fekkee ca safara ngay mujjee yàlla nee na sa mujj bon na sa mujj yees na yàlla neena na ida ulqu fiha suñu ci sànnee ca safara jahannama samiu laha da ngay dégg safara wa wa hiya shahiqan ma ngay ma ngay ma ngay xiiru safara jahannama day xiiru bu ñuy sànni nit ñi ci biir safara mel ni gaynde goo xam ne dafa xiif su gisee ku mu war a fàdd na muy yuuxoo noonu la safara bi di yuuxoo wa hiya tafuur ma ngay fuur nee na day mel ni volcan boo xam ne dafa explosé volcan bu explosé na muy riire waaw ngay gis safara wa di tëb di dal di riir nee na nu ko raw noonu la safara jahannama di mel nee na takaadu tuuti kon te may mayyazu mu mu explosé mu xotteeku moom safara minal ghayz ngir mel nee na bu gisee gaa yi nga xam ne ay yéeféer lañ safara bi day mer ngir gaa yi nga xam ne dañu weddi woon seen boroom ak seen bàkkaar yi ñu ëndaale safara yi day yàkkamti ngir alawtiku leen ngir lakk leen nee na kullama ulqiya fiha saa yu ñu sànnee ci biir safara wa jun mbooloo nee na saalahum da leen di laaj xasanatuha Malik may garde safara day laaj mbooloo moom dugg safara lan la leen di laaj alam yatikum nazir waaye yéen xanaa amul koo ñëwoon ci yéen di leen waar xanaa yàlla yónni woon ci si yéen yonent lu tax ngeen sàggan ba nar a dugg safara nii Malik loolu lay laaj waa safara waaye bu leen ko laajee xaaloo ñu ni ka balaa ahakay wallahi qad jaana nadir ab waaraate kan ñëwoon na ci ñun de wallaay yonente ñëwoon na ci ñun waxoon naa ak ñun wax nañu ni yàlla bëgg wax nañu yàlla bañ li fi nekk kay fa kadab naa dañ ko weddi woon rek fa kadab naa bu ma saan wax dañ ko daan weddi wa qul naa ñuy wax ni maa nazzala allahu min cheyin yàlla wàccewul dara ah dangeen di wax rek in antum illa fi dalalin kabir yéen daal sànku moo leen jàpp ak waxu ndax sa kandang rek moom ngeen di wax waaye yàlla wàccewul ci yéen dara loolu lañ daan tontu yonent yi nga xam ni moom la yàlla yónni ci ñun wala waaraatekat yi ñu daan waar loolu lañ leen daan tontu waaye gaa yaa ngi rëcc wa qaalu ñuy wax naan law kunna nasmau ay waay ñu nekkoon di dégg aw naaqilu wala ñu amoon ay xel maa kunna fi ashaabi sair wallahi kon tey jii duñu bokk mukk ci ñuy làkk ci safara kon nag faatarafu bi zanbihim ñoom ña ngay reconnaître seeni i bakkaar ña ngay reconnaître seen i erreur fa suxqan yàlla nee na toskere ñeel na li ashaabi sair ñooñu nga xam ni seen mujj mooy safara sair kon mbokk yi bu ñu seetluwaatee aaya yi borom bi subhaanahu wa taala mi ngi ciy li ëllëg yawmal qiyaam ñi war a dugg safara jahannama ak nan ca war a dugg yàlla ci yàlla musal ndax xam ngeen ni safara jahannama mooy safara bi gën a tàng ci safara safara jahannam mooy safara bi gën a metti ci safara yi yàlla nee na ñi ngi ko dencal nag mooy ñi nga xam ne dañoo weddi seen boroom ndax yàlla li mu wax mooy walilladina kafaru bi rabbihim ñi nga xam ne dañoo weddi seen boroom kon ñoo ñu la yàlla waajal safara jahannam yàlla nee na nag bi sal masir wallaay koo xam ni jëm mooy safara jahannama yàlla nee na kooku nag moo am mujj gu ñaaw dëgg dëgg mujj gu ñaaw mooy nga dee dugg safara ndax lu xéewal bari bari lu mu yaatu yaatu ma ni su fekkee fa mu mujjee mooy safara ma ni loolu mujj gu ñaaw la xéewal googu nekkatul xéewal borom bi subhaanahu wa taala di wax ni safara woowu nga xam ni bu ñu ci sànnee mbooloo gis nga kon li muy tekki mooy safara la yàlla waxoon ni la am la anna jahannama min al jinnati wa naasi ajmain yàlla nee na safara xawma lan waaye safara dina fees yowmal qiyaam waaw xawma lan waaye safara dina fees yowmal qiyaam likoy wone moy aya bi gis nga borom bi ba wax ni idha ulqiya fiha fawjun la yalla wax yalla dani suma fa sànnee mbooloo loolu tekki safara kon par ay mbolo la malaika yi di jël di dugal safara wa yalla neena mbolo yoy buñ duggé safara yalla ci mando du len dugal safara rek bayi len dedet waye Malik mi nga xamni moy wattu safara di malaaka mi wattu safara dina am ben waxtaan bu mi waxtaan ak ñoñu dugg safara moy li nga xam rek mom la nitu aduna yi di def nit lu mu def kirim lu mu reey reey donte ci kanamu ñepp lako defé mu ray nit ci kanamu ñepp du tax ñu jël rek dem tecc ca kasso ba da nañ ko jël yobbu ko ci tribunal ba atté ko waye dañ ko laacc may ko mu wax mu wax ba lay dina yay bopam, wala mu duggal bopam waye ëllëg yamal qiyamah bu ñu jaam ñi kadalika malaaka yi dina lach, ñi dugg safara ne leen waaw yeen lu ngeen def ba dugg safara xanaa ay yonent ñëwul woon ci yéen xanaa ay waaraatekat ñëwul woon ci yéen wallahi mbokk yi wa laaj la boo xam ni laaj bu am solo la ndax nee naa ba tàyyi dugg safara du lu yomb waaw wallahi dugg aljana moo yomb waaye dugg safara yombul ndax lii tax nit dugg safara lu doy waar la benn bàkkaar boo def ñu bindal la ko benn nga jéggalu ko ñu baal la ko far ko defal la ko sax tuyaaba nga def benn bu baax ñu soppil la ko ba muy fukk léeg-léeg ñu defal la ko juróom fukk léeg-léeg ñu defal la ko juróom-ñaari junni waaw ngay sàggan sa benn benn yooyu dem ba ëpp sa juróom-ñaar fukki junni yooyu wallaahi lu kéemaane la moo tax waa safara ni wallaay yàlla yónni woon na ci ñun ay yonent de wallaay ay nit daanan ñëw di ñu waar borom xam-xam yi wax nañ ba sonn waaye buñ masaan wax rek dañ naan leen yéen da ngeen a tardé waaw in antum illa fi dalalin kabir wallaahi a tardé waaw bàyyi leen ñu ñu dund suñu dund loolu lañ daan wax waa waa yonente yeeg ñu ñu daan waar waaye ndeysaan rëccu fekk na jëf wees na ñuy weccu rëccu nag fa atarafu bi dambihim ñuy reconnaître seen bàkkaale nag ndeysaan di rëccu la ñu doon def ba dugg safara waaye yàlla nee na fekk na jëf wees na fa suxqan li ashaabi sair moo tax foofu nga xam ni boroom bi subhaanahu wa taala nee na mbugal mu tar moomu nga xam ni wa safara jahannama ña koy dundu muy mbugal mu metti neena bala balaa ñoo dem kamay njëkk wo moy iblis neena iblis la njëkk wo bala kenn di dugg safara iblis la ni njëkk wo mu waxu ndank dem dugg safara jël sesam tek ko ci digg safara neena bu tege sesam ci digg safara wara waxtaan ak ay mbokam ndax ëllëg yowmal bo mboolem ñi dugg safara ay mbokki iblis lañu waaw ndax ku dugg safara rek iblis moo la sank ba nga topp ko bokk ci mbooloom moo tax yamal qiyam iblis ay jiitu safara def ak ñoom discours yàlla nga koy wax ci alquran nee bu boobaa iblis buy def discours jàkkaarloog mbokkam yi da di wax ni ah yéen sama gaay yi yéen ngi nii de ñu ni ko waaw waaw mu ni mbooleem lu leen yàlla digoon de xam ngeen ni lépp dëgg la teg ngeen ci seen bët mi ngi nii waaw wedd gis bokku ci waaw lépp lu leen yàlla digoon ñu ni ko naam mu ni lépp yàlla def na ko tey mi ngi nii gis ngeen ko waaye man lépp lu ma leen digoon xam ngeen ne ay nax la mi ngi nii tey gisoo leen ci dara waaw lépp lu ma leen mas a dig rek xam ngeen ne ay nax la waaye nag li ma leen di wax lenn rek la mooy forcé mu woon kenn illaa an daawtukum fastajibtum lii forcé woon kenn ni la kaay topp ma man daal nekkoon naa ci àdduna di leen wan ni lii ya baax di leen wan lu neex di leen wan bakkan ngeen bàyyi fa la baax topp seeni bakkan topp ma illaa an daawatukum sa anfusakum bu ma kenn yedd tey kuy yedd yeddal sa bopp allahu akbar mu ne kuy yedd yeddal sa bopp man def moo lu dul woo leen rek ngeen wuy si ma ndax woote iblis dafa neex dafa ànd ak bakkan woote iblis dafa neex dafa ànd ak bànneex mu ni loolu rek a taxoon ngeen wuy si ma waaye kuy yedd bis ni tey yeddal sa bopp waaye li ma leen di xamal nag mooy amul kenn ci yéen koo xam ne tey mënal naa la dara fii maa ana bi musrixikum amul kenn ci yéen koo xam ni mën naa fexe ba nga mucc ci safara tey waaye yéen it mënu leen a fexe ba mu mucc ci safara tey kon kay li may wax mooy rek bu yóbbu ngeen àndandoo ñëw fekk ma fii ñu àndandoo duggandoo sa dundandoo safara yi nañu ko àndee woon di bànneexu ca àdduna nañu ko ànd dundandoo noonu ko dundandoo ko noonu ci safara lii mooy discours bi nga xam ni ëllëg yawmal qiyaam moom la Iblis di eh, wax ak ay gaayam kon nak mbokk yi ñu bàyyi xel bis bobu nga xamni dinañ dinañ ak suñu borom subhanahu wa taala bis bobu nga xamni ñaari kurel rek moy am fariqun fil janna wa fariqun fis sair ya imma nga bok ci kurel gi nga xamni ni dañuy dugg janna wala nga bok ci kurel gi nga xamni allak ëllëg qiyam safara moy nek seen keur yalla ñu ci yalla musal kon lolu moy li nga xamanteni mom lañu borom subhanahu wa taala jinj ci ayat yooyu xamna dafa melni ñi ñi ngi di wax ni liñ ñu ci waxtu mi ngi xëcc jëm ci jeex inshallah taala suñu jotaay bi di ñew dañ duggaan nak ci ay yi nga xamni borom bi tabaarak wa taala mi ngi waxtane ñi nga xamni dañuy taxé ëlëk yowmal qiyam ak lam leen di waye bala ñoo jeexal suñu cadre rek waat mbokk yépp rek di len wax ñu abonné ci chaîne bi di Misbah TV ngir gëna yombal liggéey bi ba fu way nek rek man di jot insha allah taala ci vidéo yi nga xamni ni ngi koy def ci daara ji ñi ngi ñaan borom subhanahu wa taala mu defal ñu deg ak bo la ñu min alladina yastamiuna al qawla fayattabi'una ahsana wa mimman iza duu ila allah labbun wa akhiru da'wana anil alhamdulillah والسلام عليكم wa rahmatullahi وبركاته بيت الولايات فيه गुरु देवा खत्म गुरु देवा